li amoon il y a peut-être une semaine de semaine ñetti journaliste am am leeral TV ànd ak président Macky Sall seen oto benn camion malien daaj di ko ñoom ñett daal di ci gaañu ñu bëri nag doon wax ne lii dafa wane ne Macky Sall xëy na dafay wane ne ay taleem baaxul.

ñu toog dégg ñu ne Ablaye Mbaye Pekh otom dafa nërmeelu man damaa gis image yi damaa tiit li ma njëkk ñaan nag man sax samay abonné ñoo ma ko njëkk wax ndax man monsieur Cheikh yàlla xam ne samay abonné ñoo may wax lépp ndax instant yi damaa génnoon doon def beneen vidéo ci xeex yi am kër Macky bi ñu song Fatick étudiants yi song ko sànni ci fa ay xeer am na ñu sax dañ am na ñu ne woon sax dañoo lakk kër gi mais man gisuma ne dañoo lakk kër gi dama gis rek ne dañ dañ leen doon sànnante ay xeer waa léegi léegi waxoon naa leen ñu saa yoo leen yeewoo Macky Sall dina am ay problème dafa mel ne Macky Sall gars yi ngeen baal ma dafa mel ne dafa alku euh, ndax Ablaye Mbaye Pekh li ñu njëkk a ñaan mooy yàlla bu ko dara daal waaye nag waaye nag dégg naa ñu ne euh, benn dëkk la daal est-ce que dëkk bi tuddul wuruju xaw ma côté Matam te maatam waa Fuuta Tampi ñoo fa nekk balaa may wax ci Fuuta Tampi nañ wax ci gaañu gaañu Ablaye Mbaye Peex dégg naa gaañu am na si ay gaañu ci bopp gaañu ci bopp nag mooy deret day am te deret fu mu amee ci mag war nañoo tiit ñu ngi naan nag Baara Dolli Modou Baara Dolli est du député boobu ñu ngi naan moom dara dalu ko chauffeur dalu dalu ko garde corps bi dara dal ko loolu ñoom mënuñu ko wax ndax li ñuy wax blessure interne dafay am nit mën nga gaa mën nga am accident am ay gaañu gaañoo xam ne sa biir lay nekk sa butit wala ci sa ci sa biir yaram te loolu mënoo ko gis li fekk demuloo hopital bëgguñu sax wax ban hôpital la ñu dem bëgguñu ñu wax ban hôpital lañ dem ndax xëy na foofu amul hôpital nañ waxante dëgg côté Matam loo boo gisee ñoom Fatoumata Fouta Tampi du caa chaque jour côté Matam affaire xëy na hôpital moo fa amul côté Matam hôpital moo fa amul léegi nag nee nañ daal yóbbu nañ leen hôpital mais ab Ablaye Mbaye Pekh mag la mag la te comme deewul ci saasi rek nañu sant yàlla nañu sant yàlla waaye oto bu ndërmeelu man gis naa oto bi bu dee oto boobu ñu wane moom la ah loolu tiitaange bi rek mën na la rey tiitaange rek mën na la rey ñeenti nit ci biir oto boobu Ablaye Mbaye Pekh mag la ah lii nag lan lay wane lii lay wan lay wane xëy na Macky Sall ci boppam moo war a bàyyi lii muy def ndax dafa mel ne fi mu nekk nii yàlla mooy weer Macky la ndax fépp fu mu dem ngir wane ne moom dafa liggéey accident yi da koy fàttali ne liggéey bi des na lu bëri bëri bëri wala sax dafa liggéeyul dara ndax man dama mënul comprendre communicateur traditionnel

kenn du leen dugal ci bus climatisé yi ngeen jël seen oto particulier yi particulier yu ndaw yi man nee leen route nationale wax naa leen route nationale man ñemewu ma ñemewu ma jël ko ñemewu jël route nationale ndax oto yi oto yu ndaw wóorul tali yi xat nañu camions yi leen neex la ñu dawee surtout nag guddi gi guddi gi amul lampe amul dara ngay jël route nationale am na nag ñoo bari nag ñoo xam ne dañ ciy profité di wax ne lii Macky Sall lii la bëgg def ngir am nguur ngir denc nguuram ndax Macky dafa gëm dafa gëm mystique yëpp ay sacrifice la yu bëri di ngeen dégg ñu wax loolu mais man Mister Shake du ma wax loolu man du ma wax ne Macky Sall moo sacrifié euh, ñetti euh, journaliste leeral yi du ma wax ne Macky Sall moo sacrifié Ablaye Mbaye Peex wala dafa bëggoon sacrifié Ablaye Mbaye Peex li may wax rek mooy ne Sénégal yàlla mooy weer Macky Sall ngir wan na ko gis nga gis nga tali yi baaxul bu len fàtte ne Macky Sall moom ci bopam otoom takkon na fi otoom takkon na fi ndax tali yu bon ndax Maybach bobu mu yoron mo euh, président Mali bi ba mu fi ñewé président Mali bi mu fi ñewé ñu dugg ci auto bi auto bi dégg naa dafa am lu mu mbëkk ci tali bi benn genre doo daan loolu moo taal oto bi kon Macky Sall ci boppam xëy na yàlla moo ko bëgg moo koy weer ngir wax ko ne liggéey bi nga war a def ah defuloo ko waa Fouta Tampi nag waa Fouta Tampi ñu ngi génn di kaas waa maatam génn di kaas am na ku taxaw ak président bi sànq wax naa sama vidéo sànq bi benn benn jeune bi Matam waa di ko joxoon baaraam nan ko Macky defoo fi dara Macky Sall ah yow daf musuwaar nga ñu jàppee ah musuwaar nga ñu di wax ak moom di yëkkati baaraamam di ko joxoñ baaraamam di def nii gars yi dégg naa ba mu paree cinq minutes après ñu jàpp ko dem tëj xamuñu ndax Macky moo wax nañ ko jàpp tëj ko xamuñu ndax ñële waa policiers yi ñoom ñoo ñoom ñoo xër seen xër jàpp ko lan moo tax président waruñu wax ak moom bu dee président dafa ñëw ne day day dugg ci euh, population bi ndax Macky daanu loon def lii bu njëkk ba Macky daanu loon sax wax ak ñun faale wu ñu woon léegi nag bu demee ba ba ne day dox ci tali mbedd yi dem fekki askan wi askan yi am nañu droit ñu wax ak moom muy déglu loolu sax dafa baax ci Macky loolu dafa baax ci Macky Sall am nañu droit ñu wax ak moom di ko joxañ di ko wax na li ñu digoon ñëpp defoo ko ñun waa Fouta Tampi dañoo sonn am nañ droit ñu wax ko waaye bu dee dafa wax loolu ba pare Macky Sall di dégg di def nii uh-huh, uh-huh. waa ji dem mu joxe instruction ne jàpp leen ko loolu loolu dafa ñaaw bu ko deful nag bu ko deful loolu tam dafa ñaaw ndax policiers yi kenn santu leen kenn santu leen. waa ji di wax ak Macky Sall di def baaraam bi ngay téye loxoom lu tax ba lu tax ba doo téye loxoom gis nañ président France bu ñu mbéj mbéj lañ ko def mbéj bu bar waaw Macky Sall kenn mbéju ko kenn sànni ko xeer kenn defu ko dara dafa doon wax ak moom ci ndànk ndànk léegi nag ñun li ñuy wax rek mooy gis nga tali yi ñoo bon du question Macky Sall rek tali yi ñoo bon Ousmane Sonko day waaj a def day waaj a def moom it euh, tourné nemmeeku moom it bu yóbboo mu def attention te xamné tali Sénégal yi ñoo bonté lool yépp nak Macky Sall moko waral mais Ablaye Mbaye père ah li doyna war li doyna war ndax Ablaye Mbaye père du n'importe qui du n'importe qui mom moy géewul Macky Sall n'est-ce pas moom mooy communicateur président Macky Sall nguuru Macky Sall amna ci ay centaine de millions centaine de millions nañu waxante deug yaakaar nañ ko <coughs> nguuru Macky Sall amna ci ay millions bok du ma wax centaine de millions mo xam mais ñun gëm nañ ni nguuru Macky Sall mi ngi koy defal

ah deuxième vague moy xéñ loolu lañ dul dafa mel ne deuxième vague moy xéñ dafa mel ne dafa am luy waaj am mais daal lii wóor lèr li lii wóor te leer mooy ne euh, Macky Sall na def attention na def très attention surtout étudiants yi nañ leen moytu ndax étudiants ñu ngi commencé yëngatu te révolution bi mën na jaare foofu gars yi Mbaye Pekh nak vraiment billahi wallahi taalahi bugguñu dara dal ko ñu ngi koy ñaanal mais lii dafa ñaaw li dafa ñaaw tali Sénégal yi man yàgg ku xam mr Shake ku xam mr Shake xam ne man du question Macky Sall ba ma nekkee Sénégal nekk youtubeur man li ma def ci vidéo ci accident Sénégal di ko naqarlu wallahi wa wataalaahi amul benn youtubeur bu ko def Sénégal dama amoon rubrique rubrique spéciale boo xam ne saa yu accident amee rek ma génn def ci def ci vidéo ñëw New York di ko continuer gis nga am Macky Sall avant muy muy am accident ak ak waa leerali semaine bi ci Euh, bi ko jiitu am na accident bu amoon six personnes dee ci def naa ci vidéo dama ci def vidéo semaine bi ci top ci la waa leerali gaañu kon man lii defuma ko pour politique dama yàgg naqarlu ne ne ne accident yi dafa dafa bëri Sénégal c'est pas normal kii Papis Jalongal euh, du moo gaañu ci autoroute bi péage il a fallu que mu gaañu pour Eiffage doo ko wax ne te ñuy def euh, nu ñu tuddati dañ fay def ay ay ay lumière est-ce que waaw ñun daal foofu la ñuy waxee mais en tout cas Macky Sall lii yëpp ay ay ay ay tegtal la yàlla moo ko bëgg a wan ne moom nguuram dafa jeex lii fin de régime la étudiants yaa ngi kaas accident yi bëri nañu waxu avion waxu euh, nu mu tuddati deuxième vague waxu bateau lii yëpp dafay wane ne Macky Sall nguuram mooy waaj jeex kon nag moom moo war a nangu dogal bi moo war nangu dogal bi bu mu wax waxu deuxième troisième mandat bu mu wax waxu Adji Sarr waxu Ousmane Sonko mu jéem a xool bu mu wax waxu tribunal mu jéem a xool nu ñuy def ba mu dem ci jàmm ak salaam mais boo gisee tey ah, Hélène Françoise Guèye mel na ku jëfru dem leeral tey gis naa ku Sénégal bu nekk fa di yàq deru Ousmane Sonko mu mel ne nañ ko yónni Barthélémy Dias nee na fii ak septembre dinañ jàpp Sonko dinañ ko tëj kon affaire Adji Sarr dafa mel ne moom lañ bëgg indi mais gis nga yàlla li muy def di wane ay accident fii di wane ay ay Fatick ñu ñu ñu song Macky yëpp ay tegtal la ngir wax ne Macky na def ndànk na def ndànk bu deful ndànk dëkk bi dina tàkkaate bu dëkk bi tàkkaatee moom am na nu mu demee du eggali deuxième mandat gars yi like leen partager leen abonné leen Mister Shake la ba beneen merci